سمانة البقاء والمخالفة من قاد لي أمنا بلا مخالفة ملك الذي القيام بالنفس وجب لو إلى كليتي قاد رجب الحمد لله تعالى وحده كما له الخمسة والوداء boisson bi ñu defaree fii ci réew mi saytu ko mu baax lool ci wér-gi-yaram pëns moo leen di ñaanal màggalu Tuuba jàmm ak salaam di ñaanal Cheikh Sidi Muxtaar mu yàgg fi lool te wér waaw salaamaaleykum mbokk yi kenn ku ci nekk ñu ngi lay nuyu ci turam ak santam yéen ñi nga xam ni yéenay seetaan site internet bi euh, tay ñu fas yéen def ak yeen émission waxtaan ak yeen ci waxtaan bo xamni dina jural ku nekk njariñ ci ñun man nak may Modou Fall borom yóbbal bi responsable politique APR Touba Gédé encore don conseiller ci cabinet maire bu Touba Abdoul Lahad waaw question bobu dina ci sawar euh, monsieur le maire Abdoul Lahad li dox suñu digënté ba ma jégé ko mbaa ma bokk ci ñen ci ñi ko jégé moy serigne bi daf ko denk euh, commune bu Touba ginnaaw bu ma ñaanalee sëriñ Mountakha Bachir yàlla suñu borom yagal ko fi lol te wëral ko may ñaanal serigne Sidi Muxtaar yalla yokke leeram te taf ci barkem di ñaanal serigne Sidi mu serigne abdullah hat mi nga xamni mo denk maire moomu nga laaj legi commune bi bim ko ko dénkee maire don jëm ju ci liggéey liggéey bu dal xel yalla dogal ma don ndaw dekk ci dekk bi manit euh, manit di yëngu ci politique. yàgg am yéene euh, jàppale ko ci liggéey bi nga xam ne moom la ko sëriñ bi sase euh, ba mu demee ba xam ko ñu toog waxtaan déggoo ci kaw ay kàddu am loo xam ne jàpp na ni euh, mën naa ko dugal sama loxo ci liggéey bi ngir di ko barkeeloo loolu moo ñu boole ba tax tey ma bokk ci ndaw mi nga xam ne ñoo koy jàppale ci liggéey bi nga xam ne mu ngi koy liggéeyal sëriñ bi ak population bu tuubaa waa xam nga budget mairie Touba moom comme li may faral di wax saa su ne waxoon naa ci te dinaa ci waxaat euh, budget doonut loo xamante ne si lu lu lu yomb la euh, comme uti ko daa jafe sàkkantuma laa nag waxtu wu ñu demee toog ba toog ba di ko voté voté na nag boo gisee fii ci diwaanu Touba muy xaw a indi coow yu bari mooy bari waaye na ñoo xam ne dañoo jàpp ni budget moom buñ ko xasee voté rek keesu xaalis la gu nekk ci biir mairie bi wala euh, ab xaalis bu nekk ci banque bi. te budget ab nattu la buñ nattoo nattukaay bi nga xamante ne si fa lañu war a nattee ba teg ni nangam ji lañu soxla nangam jooju dañuy génn wuti ko ci population bi loolee nag ñaare ñi ko xam dëgg ñi ko xam dëgg dëgg dëgg bëriwul wala ñi nga xamante ne si ñoo ñoo ñoo war a leeral nit ñi pour ñu comprendre génnuñu leeral nit ñi loolu nag en général buy am mbirum xaalis buñ ko xasee tudd rek ñu ci baree baree bare dañuy jàpp ne lu tege ci kees la. wala lu nekk ci banque bi la wala loo xam ne lu maire bi denc la te budget lu ñu war a wuti ci askan wi la loolu nag moo tax tout le temps mooy indi coow ndax euh, bu ñu demee ba ni budget Touba nga ne Touba mooy deuxième ville ci Sénégal nga dem ba budget Touba doon ay 4 milliards et quelque moo lay xamal ne kon ñi war a fay ci biir Touba fay ñu ndax bu ñu fayoon dëgg dëgg dëgg 8 milliards et quelque yi la ñuy la ñuy voté seen budget ndax dëkk boo xam ne léegi mu jot ndakaaru ci dayoo budget ndakaaru mën a mën a ëpp budget Touba. cinq fois wala six kooku yaakaar naa jaaduwul kon budget saa su maa ngi koy wax ñi nga xam ne ñoo ñoo ci am xam-xam dañoo war di génn chaque jour di ci waxtaan ak askan wi di leen ko leeral ndax nag euh, doonul xaalis boo xam ne dañ ko jël rek teg ko ci kees wala ñu dugal ko ci banque bi saa bu maire bi soxlaa dem jëli. budget comme daaw dañu ne woon 4 milliards et quelque nañ nañu voté budget bi am 1 milliard 200 kon loolu mooy xamal ku ne ni. karu bi jeb daw bi jotu ñu ci woon 1 euh, milliard 200 nak bok amé ci dëkk bu melni Touba am 200 et quelques personnes employées euh magali don 300 et quelques par an euh nga amul amul ben employé bu mas a génn marché ci Touba na fay ñu ko weer amut genn màggal goo xam ne mas naa jub si entretien yi nga xamné mairie bi moko wara entretien ci ci ci penc momo wala ci cérémonie bi amu ci kon yakarna ci 1 milliard 200 kookee Euh, jàmbaar la joo xam ne def na loo xam ne lu jafe-jafe la ndax lu 4 milliards war a war a def par an nga góorgóorlu sa kemtulaay kattan ba def ko ci 1 ak quelque te coow jibul euh, poste de santé yeeg tout ça euh, mbënd meeg nawet beeg lépp ku ci nekk gis na ni muy li ko waa Touba di jànkonteel maire bi taxaw ci seen kanam taxaw ci seen ginnaaw yaakaar naa loolu su amee war nañ ko santaat gërëm ko xam ni dëgg-dëgg it nag am na lu des kenn wérantewu ko waaye nag li ëpp mi ngi ciy bay waaram mi ngi ciy góorgóorlu kemtulaay kattam bari naa it nag loo xam ne des na biir Touba ndax Touba ni muy màggee la Touba suba gu xëyee day day am ay sañcaan yu bees saa su ne boo génnoon fii ci village yi nga xam ne ñoo wër biir Touba biir euh, ville bu Touba dangay gis ñeneen nit dëkkuwaay yoo xam ne dalay leer lii ay dëkkuwaay yu bees la te ñooñu soxla nañu ay ndox soxla nañu yoon soxla nañ courant. soxla nañu bérébu liggéeykaay boo xam ne saa suñu ci liggéey kon du ma ne lépp mat na waaye lu baree baree bari maire bi mi ngi ciy lu kémtu lay kattam jàpp naa ne su ko waa Touba accompagné jàppale ko ci sas wi nga xam ne moom la ko sëriñ bi sas danañ dem ba fàtte yu baree bare baree baree boobu tam gis-gis bi ma ci am mooy ndigalul sëriñ bi li ma waxoon laay waxaat jëfe ko moo gën ñàkk koo jëfe euh, ndigalal sëriñ bi ki koy jëfe du ci gis lor ki ko jëfewut ah man Modou Fall borom yóbbal bi de jëfe ndigalal sëriñ bi moo gën a dal ci sama xel ci sëriñ bi digle ma bañ koo jëfe euh, ba tax na bi loolu amee sëñ bi joxe ndigal na nañu leeral mbedd yi euh, dénk wax ko sëriñ Bass Abdoul Khadir mi nga xam ne mooy porte-parole bi sëñ Bass woo maire bi dénk leen ko euh, waa mairie bi jaarale ko fañ ko war a jaarale muy ci préfet sous-préfet ak gouverneur de la région police gendarmerie ñu ànd ceeg. population bu Touba euh, liggéey ci liggéey bu jaar yoon loolu ñi ngi sant nag ñëpp ndaw ñi nga xam ne yëkkati nañ seen place tañ nangu ko ndax ci ndigal rek nañ ko wékk kenn ku ko ku ko bëggoon a def lu dul ndigalal sëriñ bi nit ñi dañuy taxaw lànk ndax nit ki fi muy xëy di ci suturlawoo nga xëy xëy bis ñëw xañ ko ko kookee ndigal képp ko man ndigal nag li def loolu am na leneen lu gën a kawe jëf jooju am na lu gën a kawe place boobu am na lu gën a rëy koom googu ñu doon am foofu kon maa ngi ñaan ñi nga xam ni ñoom la yàlla dogal ñu amoon place ci mbedd mi te ñu yëkkati leen yàlla yàlla dogal ñu am ñu jàppandi ci lu ko gën foofu ci barki Serigne Touba mi nga xam ne moo joxe woon ndigal li waaye dafa mel ne loolu ñaan googu daanaka nangu na ndax euh, bi nga xam ni le président Macky Sall yëg na ko jënd na marché gaar ba ba jox ko benn entrepreneur boo xam ni mu ngi koy defar te jënd ko ngir kenn lu ndaw ñi muy marché bi nga xam ne moo nekk ci gaar bi euh, état def na ci ay milliards yu bari may ko ndawu Touba euh, entrepreneur bi nga xam ne moo koy defar wax na ni marché bi su paree ci suuf dina def 10 000 places ci kaw def 10 000 places ñaari 10 000 20 000 la kon marché bi lépp lépp 20 000 places mu ngi ci yoo xam ni ndaw ñi ñoo ko moom 20 000 places yooyu su noppee dina am ci biir. ay plat ay jaaykatu plat ay massa ambila ñoñu timit le minimum man na mat 10000 kon lolu gis nañ ni marché bobu dayop marché bi ak reyna rey go goo sa bu noppé man na def le minimum 30000 place maximum man na def 30000 place ndax 20000 place ak ñi nga xamni ñoy ñooy marchand ambulant yeeg ñii lay yek ñi nga bu sen plat di jaayantu ci bi rek tout ça boko bolé mëna doon 30000 places lolu nak comme président de la république def nako jokk entrepreneur yi mu wara jëm ci xalé yi nga xamné tay ño ñak seen place ci mbéd mi ki ñak place am ci mbéd mi mënul tok de xaar ma ngi lancer appel ñi nga xamné ñoy liggéey bobu nañu baral liggéey bi ba xalé yi kenn ku ci nekk am fo duggu pour mën fa yaxantu pour am lo yobbu sa njabot dimbalé ko sa euh fofu tim ma fi tonto yakana waxon na ko gis nga kurel gi nga xamni ño ño yor ndoxum touba kuréel gu jara saytuwaat la kuréel gi yor ndoxum Touba kuréel gu gu sëriñ bi war a xoolaat seen ay mbir la parce que tout simplement man mënuma d'accord euh, lu toll ne Touba ak dayo bi mu am lu toll ne Touba nga ne mooy deuxième ville de Sénégal nga dem ba dëkk boo xam ni danga naan mooy deuxième ville de Sénégal dëkk boo xam ne ba bëccëg subaak ngoon waxtu wu ne yaa ngi sentir ne nit ñaa ngi daw dafi jubal si ak heure bu ne ak waxtu wu ne utaluñ ko heure dëkk boobu dem ba tey da ngay toog saret di jël ndox di dawal di la ko indil ban ndox la lay indil ndox bi nga xam ne day nekk ci bërigo 20 litres bu ñëwee lu mu la koy jaayee vingt francs CFA te tanga ne mooy deuxième ville nga jóge ci loolu da ngay am bërigo ci sa kër 20 yi euh, te 1000 yi soxla ndox. di oote trois jours quatre jours cinq jours ñu soog laa indil ndox ndox bi ñu lay indil nu mën a mel di nga ko jëfandikoo boo gisee ma jiital lii ci tontu bi mooy pour lan dëkk bi mënul jóge foofu ci ci ci ci ci dynamique boobu muy doxee lu tax ñi nga xam ne ñoo yor ndoxu Touba mënuñu góorlu ba utal ñu ay plage yoo xam ni kenn ku ci nekk ca gox ba nga dëkk boo soxlaa ndox doo ci otante téléphone doo ci utante saretu mbaam bu la utali ndox dangay taxaw fi nga taxaw immédiatement am ndox ci loo dul oote téléphone loo dul loo dul uti saret Dakar ñaata robinet mbedd moo fa am ba kër yi nga xam ne amuñu amuñu amuñu robinet dañuy génn dox 100 euh, mètres dem ci robinet bi ñu jaay leen paanu ndox 50 francs ñu ñu yanu ko ñëw seen kër wala ñu jàppoo ko ñëw dugg ci seen biir kër yor seen bureau mu vingt litres dem ñu jaay leen ko cinquante francs ñu jël ko dugal ko ci seen biir kër nga xam ne da ngay génn ci kër gi dugg ci ndox dugg ci robinet bi pour pourquoi Touba mënul àgg foofu il faut ko nga toog 3 jours 4 jours ñu doog laa indil nga woote téléphone ba dagg ñu doog laa indil ndox nga xam dangay ngay mujj li ngay jënd ci crédit sax euh, mooy ëpp doole fuuf li bureau bi jar te ñu la indilee ndox kan moo la koy indil seretu mbaam lan moo ne ci ndox mi doo ko xam mais l'essence c'est que am siiw koy def ndax bëggoon nga cee jot jot nga ci côté ñàkk ndox mi nag ci màggal gi état danañ ko remercier parce que tout simplement lépp lu mu war a def ci ndox mi def na ko ci forage yi paanoon avant màggal gi muy quatre forage yi état bi ñu taxawee naan kan moo koy defar kan moo koy defar ñi yor ndox mi taxaw fi naan kan moo koy defar état yëkkati na 160 millions def ko ci ñu réparer forage yooyu bi ñu demee ba ba jub màggal gi état bu fekkonte ne ndox mi mu ngi ci doon def téeméeri millions ren def na ci ñetti téeméeri million pour ndox mi jaar ci yoon ren bu doon état bu njëkk da ci doon def téeméeri million ci màggal gi ren yëkkati na ñetti téeméeri million def ko ci ndoxum Touba pour ndox mi jaar yoon may wax ñett nag muy nguur yàllaa koy joxe ku mu ko jox dañ ko ko war a nangul président Macky Sall mi mu ko jox mooy président de la république fii ci Sénégal ku mu neex ak ku mu neexut ñetteel ba li sénégalais yu bëgg mi ngi koy def 100 pour cent ndox mi nga xam ne guddeeg bëccëg suba ngoon ñi ngi takk ay rajo di ko laajal addiya te bu duñ ci fayal courant courant bi état koy fay courant forage yi état koy fay bu forage paane état mooy defar màggal Touba état mooy jël ci gafagaam joxe pour ñuy yokk ndox mi ba mu gën a am doole waaye yaa xayti kon addiya addiya jooju ñuy laajal ndox mi fan la xaalis boobu jëm question la bu may laaj ñi nga xam ne ñoo yor ndoxu Touba yaa xayti 125 yooyu ñuy jaayee bidon bi ndox moomu fan la jëm 4 millions yooyu ñuy jaayee bërigo 1000 euh, litres bi. xaalis boobu fan la jëm euh, compte bi nga xam ni ay ay ay homme d'affaires ay liggéeykatu ay taalibe Sëñ tubaa ay liggéeykat ñoo ne ci dëkk bi ñoo toog ba mu yàgg yëkkati seen alal dugal ko ci compte bi te du ñu bëgg sax seen tur feeñ xaalis boobu anamu man question la boo xam ne maa ngi koy laaj ñi nga xam ne ñoo yor ndoxu Touba dama ni bëgg naa sëriñ bi xoolaat kuréel gi nga xam ne ñoo yor ndoxu Touba bëgg naa sëriñ bi saytu leen. bëgg naa sëriñ bu ut beneen commission boo xam ne ñoo leen di contrôler te commission boobu doon commission bu indépendant yoonam du nekk ci ci politique yoonam du nekk ci dara lu dul population bi ak sëriñ bi. gone yi nga xam ne ñoo ko sos kenn amugu ci fanweeri at ak juróom te yaakaar naa ñooñu kon ay tut tànk lañ tut tànk nag lu mu sos ànd ak moom di màgg ndaw lu ànd ak jëf di màgg la bëgguma ci woon sax tontu. ndax nag euh, mën na am kuréel geewgu yàgg nañ leen attaqué te tontuwuñu yàgg nañ leen songu te tontuwuñu ndax bi mu sosoo yàggul wante nag dafa def ay jéego yoo xamante ni si dal na xel ci politique ci ki nga xam ne bëgg na victoire mu def ay jéego yoo xamante ni si day xaw a tey xel ci ki nga xam ne daa nekk ci politique te musul am victoire saa bu demee day am défaite kooku nu mën a def daw songu kuréel gi nu mën a def diaboliser ko nu mën a def jéem ko yàqal ki nga xam ne nag mu ngi politique te victoire rek moo ko ñor kooku fu mu toll mi ngi encouragé kuréel gi fu mu toll mi ngi koy tàllal loxo fu mu toll mu ngi koy tàccu ki nga tudd léegi muy Moustapha Messere di suma xarit sama xarit la loolu yàlla dogal wante dama jàpp ne li mu def njuumte la njuumte la lu mag ci moom ndax li tax muy njuumte mooy bi mu koy def dafa mer la ko merloo mën na am mbirum biiram la ndax nit ki day bég tey suba mu mer. mer nag ku ne xam na ni noonu boroom la ba mu meree def na ko ba mu ko defee ba mu xëyee mer ma jeex woo na téléphone journaliste bi pour mu dindi article bi nga xam ni moom la doon def kon ki nga xam ne daa def tey suba mu xëy di ko dindilu kooku ma ngay rëccu kooku ma ngay rëccu kon man dama jàpp ni teg gone la ndax it euh, njuumte ga fa mu tàmbalee rek mooy ku ñëwoon ca bis ba jeunesse à mars la 17 bobu ku ci ñewoon 17 décembre bi ku ci ñewoon gis ndajama ma na mu toll ak programme ba na mu demee di nga xamné li du ndajam 5 millions sel ta mom lamu lim ci ay xaalis lepp mutul 5 millions lim lim lepp ku ci ñew di nga xamné li 5 millions mënu ko defar té li may wax bari na kilifa yu ci ñewoon yo xane mat nañ ma sédé ñun wa jeunesse à mars ba tay ji may wax ak yow bor dañaa dañoo top ci suñu ndaje moomu bor bo xamne batay ñi ngi ñukoy fayeku daf ñu top ci suñu ndaje mom c'est-à-dire ki nga xane nak da defar programme ba paré ñew tek ko programme bi jeex bor top ci bor top ko bam wara dem fayi bor bobu koku yakarna amu ci lu muy lekk wala lu muy luubal amu ci lu muy lekk wala lu muy luubal kon damay japp ne mustafa bi nga xamne mo wax wax ji dafa joom liko joom lo moy mer famu mere ak fimu waxe du ben ndax daa mer ci leneen ñëw wax ci kuréel gi nga xam ne ci la bokk mooy wax ne kuréel gi kuréelam la bokk na ci ñi ko sos bokk na ci ñi ci doon dox bokk na ci ñi ci doon liggéey dobi à la fin ba jour bi muy wax euh, ba jour bi muy wax waxam jooju ñun waa kuréel gi dañoo jàpp ñi ba tey ci biir kuréel gi la bokk te mënu cee génn ndax kenn ëppalewu ko ndax kuréel gi kuréeluk APR la te moom ci biir APR la bokk kon doomam laxas Kurelam la khas rakam la khas lumu la khas lu mu moom la doon jema yak waye japp na ni kurel la go xamni ni caaxaan ko ndax kurel gu taxaw la te intéressé na lol président de la république intéressé kilifa yi nga xamanteni ni si ñoo nek bir APR ak benn. ay kat nañ ay kat nañ pire gep kilifa go xamni kilifa go xamni yaangi ci bir kurelu formation yi ñu laaj la nga ni. li ñu nekk xam nga dafa am ci ci ñaari sens yoo xam ni mun nga ko comprendre bu fekkonte ni dafa dem dugg ci seen biir pour di jël formation faramason yi nga xam ni gëmuñu diine benn diine di leen fa jëlee di leen tàbbal ci biir diine ji nga xam ne missionnaire lay doon waaye sart yañ koy teg du ko tegoo la ñuy wax du ko wax seenum ndaje du ca teew su boobaa mun nga ko comprendre nga xam ne day mel day melni euh til gi rëbbu sa bu ginar genné wala ciapa cioli wala nat day daw capté ko indi ci kafam, muy ci mpaxam koku mën nga ko comprendre bu doon daa taxaw kunni ni ah diw kat formation la mu le goudi euh sam xel wala wax ak yow ba indi la ci diné l'islam koku da ko mëna comprendre waye don kilifa diné ci li nga wax bu formation yi wotem ndaje ya cey jitu fuñ ko mëna woté ci aduna dem ba waxtaan ak ñoom ba ñu teg say loxo benn organisation bu rëy na la organiser ñu ñu ñëw Sénégal nga dem ba wax ni daanañ la joxub xaalis ngay lim dëkk yi nga ko daan yóbbu nga dem ba wax ni bari na loo xamante ni si yaa ngi koy séq ak ñoom ngir ut jàmm jàmm lislaam moo njëkk a oote jàmm bu dee jàmm ngay wër bu fekkente ni jàmm nga bëgg a nga bëgg a protocole bu fekkente ni jàmm nga bëgg a lislaam moo njëkk a oote jàmm nga génn ci lislaam jooju dem ci formation yi na jàmm ji ñuy woote moo la dugal ci ñoom nga dem ci ñoom na da nga leen a bëgg a tourné indi leen ci seen diine tourné indi leen ci seen diine laataa nga leen tourné indi leen ci seen diine yow fekk ji nga leen ci seen diine ba noppi ndax seen diine boo ca demee am na lu ñu lay jox loo xam ne moom ngay utiliser moo xam muy am ndox la wala seeni wird seen diine boo ci demee am na sas yoo xam ne dañ la koy teg yoo xam ne di nga ko tegoo kon yow génn nga ci diine lislaam doon formation léegi nag ki nga fekk ci diineem noo ko jëlaatee ngeen ànd yéen ñaar delus diine kon ñoom ñaar nañ fa moom kilifa googu ak formation yi nañ bokk toog ba jeneen kilifa gu set wecc gu namp diine xam diine nangu diine ñëw jëlee leen fa ñoom indi leen waaye moom bokkutut ci diine ba fi dugal kenn tappale kat a ngi noonu bu mag a mag boo xam ne day li ma leen di wax mooy gis nga politique jërul xeex ci rul man li ma gëm mooy ñun dëkk bi ñun ñëpp ñoo bokk benn ambition muy fexé touba nek ci kanam muy fexé touba yi li dëkk yépp am mu diko am muy fexé touba ba li dëkk yépp di gisé seen bop ci état ak gouvernement bu fi mëna a mu gi ci seen bop koku nak moy PDSO muy bok gis-gis muy muy kurelu ATP muy fo mëna bok muy APR muy kum mëna don japp na né kenn ku ci nek war ngay défendre say position te duñu xeex duñu xulo duñu saganté sa à li nga xam ne nag mooy suñu problème dëgg dëgg dëgg mooy dañu dugg ci politique te ñu ci bari comprendre wuñ lan mooy politique pour ñoom politique wax ju ñaaw la pour ñoom politique xastante la pour ñoom politique saaga la pour ñoom politique warante la pour ñoom politique naxante la pour ñoom politique teg dil la pour ñoom politique beddu kontam xeet la pour ñoom politique xeeb nit la pour ñoom politique mën a taxaw positionné wu dëng wax lu la neex pour ñoom politique pànk la politique du yooyu politique nit ki sam xelum bopp ci nga koy defee ci kaw nag boo ko gëstoo wala nga jàng ko ba xam ni politique nii ak nii nañ ko war a defee li ci jiitu mooy sa intérêt askan moo ci war a jiitu li ci jiitu mooy sa intérêt dëkk bi nga xam ne fi nga yeewoo moo ci war a jiitu leneen li ci jiitu mooy sa intérêt réew moo war a jiitu waaye politique boo demee ba jiital sa intérêt personnel doog a indi sa intérêt réew rek su boobaa da indi ay problèmes yu bari mooy waral problème yi yëpp di am kon maa ngi leen di woo ni Touba mérito na leneen lu dul saagante mérito na leneen lu dul xastante mérito na leneen lu dul taxaw di jàkkaarloo. سمانة البقاء والمخالفة من قاد لي أمنا بلا مخالفة ملك الذي القيام بالنفس وجب لو إلى كليتي قاد رجب الحمد لله تعالى وحده كما له الخمسة والوداء boisson bi ñu defaree fii ci réew mi saytu ko mu baax lool ci wér-gi-yaram pëns moo leen di ñaanal màggaluk Tuuba jàmm ak salaam di ñaanal Seex Sidi Muxtaar mu yàgg fi lool te wér